Euh, lundi 22 avril 2024 euh, contrat avec la société saoudienne Aqua Power pour une usine de usine de dessalement nébuleuse autour euh, du contrat de 459 milliards de francs CFA ñu wax ci contrat bi ñu signé cinq jours seulement avant lii di mandat bu président Macky Sall di jeex cette insuffisance relevée par le conseil d'administration de la SONES tenu le 20 mars ak absence avis bu DCMP ñu gis ni c'est un coût de 45 milliards de francs CFA par an au budget de, de l'État sur 30 ans ak am na ay assurance yu tukkee ci directeur général bu SONES lépp mu ngi ci euh, page 3 bu euh, journal bi ñu ñëw ba tey ci ex ministre yi nga xam ne dañ leen a jox euh, dogal dañ leen a kon sommé ngir ñu delloo seen i oto waaye tamit seen i voiture de fonction ils ont reçu la notification vendredi dernier mi ngi ci page 4 bu journal bi ñu xool démb euh, ziyaara bi amoon fële ca Tivaouane ziyaara général le message de Serigne Babacar Sy Mansour à l'endroit des célibataires et puis euh, ba tey rek lii Linguère la xewee moom nee na xaritam bi daf ko doon ñaawal ci musique bi muy déglu moom sàmmkat bi nag mu jël loxo bi dagg ko ci page 7 la Euh, football l'observateur ñëw na si ak euh, Ligue 2 Moustapha Mbow le Sénégalais qui rayonne au Paris FC se confie c'est à lire à la page 12 du journal ñu dem xool record li mu xëyee appalay tey jilee ci altine bi ci xëtam mu njëkk ñu xool information yi nga xam ne moo aju euh, ci wàllum tàggat yaram FA Cup maladroit contre City Jackson doit s'en vouloir ak nataalam ni et puis Everton retour gagnant de Ghana buteur ñu des ba léegi ci wàllum football Liga Real Madrid Barcelone 3-2 Bellingham scelle un classico de feu c'est à lire à la page 8 et puis basketball national 1 féminin dixième journée euh, GBA rejoint les finales Ray gagne enfin ci euh, góor ñi euh, Port enfonce USO UGB proche des finales tu répètes enfin <laughs> mortal apparemment euh, ci wàllum làmb yi tamit ñëw nañ ci tey jile Eumeu Sène euh, réplique à Sa Thiès dans l'enceinte il n'y aura pas de pitié maanaam bés bu ñu demee ba ci biir arène bi du ko baal dara euh, l'observateur ak record ñaari quotidien yi groupe Futurs Médias édité ngeen mën koo jënd lire xibaar yooyu lee tout de suite ñu jàll ci météo bi en express alors bu leen fàttee euh, météo bi léegi léegi dañuy ñëw dem xolaat naka la ñu yendoo ak ummi